famille royale dañuy wax accès à la terre wax naa ko léegi avec le ministre Ndeye Tické nee naa ko bo gisee ñu distinguer les femmes rurales c'est parce que dañu amé spécificité yo xamné ñom lañ ko jagleel bu ñé jigéen ci all bi moy bay bu ñé jigéen ci all bi moy sam bu ñé jigéen ci all bi moy topato sa njaboot les travaux domestiques parce que fana bu ñé nee ci all bi li gëna gën a gàllankoor li nga jafé jafé jafe nga xamné ne yor seen kër ba paré bëgg a defaat yakarna nak bu ñu accès à la terre la loi ki nga xam ne régir vraiment l'obtention de terre ñëpp la si yemale góor a jigéen waaye ñun jigéen ñi nag ñoo war a xool suñu positionnement taxawaat ba jël lañu moom parce que boo demee tey ci périmètre maraîcher yi koy fekk ci tool yi jigéen ñi nga fi fekk ñoo nekk tool yi ñooy ñooy bayaat ñooy arrosé ñoom ñooy def la cueillette bu ñu paree nag góor nga taxaw yor seen ay banaan dem ci marché di ñu jaayal loolu nag jigéen ñoo ko war a xeex ba mu deñ parce que yëf yi ñun ñoo ko moom parce que alal ñu ci loolu je pense avancement am solo la yaakaar nañu si japp parce que tey bo xolé jigen tay jii ko xolé jigen démb ak tay gis nga différence bari parce que sen taxaway yokuna renforcer na leen sen capacité sen leadership renforcer nañu politiquement ba ku ci ne nga défendre idée am nga lo xamné ne ay ressources na jox la ay capacitation la defal yo xamné mu nga taxaw def sa plaidoyer bu am solo kon jigen ñi ngi leen di wo ci changement de comportement changement de comportement ne veut pas damay changer comportement nek un slogan ça doit être un truc naturel bo xamné ne dafa nek ci ñun parce que jigen ñi yaakaar bu nga changer réew mi changer buñu ñu kanam jëm réew mi jëm kanam ñu financement famille buñu bu financement famille fofu changement fa la wara commencer parce que le le ministre l'étiquette là du tout à l'heure jigen ñi pour ñu am sen positionnement il faut économiquement ñu am doole ñu jappalé jigen yor xaalis parce que jigen bu gëra xaalis bu ñor ay ressources yaakaar naa duñ ko jëmee fenn fu sen jabot duñ ko jëmee fenn fu sen ay famille kon buñu ñu la jàppalee suñu participation ci développement économique réew mi dina ëpp solo lool nak je crois président Macky Sall comprendre nako

que femmes et femme femmes entrepreneurs ay femmes leaders di liguer, di générer ay revenus di générer ay emplois parce que faut faire du xaar au Sénégal c'est ça la vision de son excellence président Macky Sall.